وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك qaala inni aalamu maa laa taalamuun dal leen ak jàmm tey ñi ngi leen fas yéene xamal jàmbaari sëriñ Tuubaa ju mag jigéen ju mën góor muy soxna maam Isa Mbàkke Euhlou Café ngir nga xam soxna maam Isa Mbàkke nag dana laaj ñu delluwaat ci ñaari wayjur yi ko seq muy sëriñ Modou Faty Khary ak soxna Ndey Fay ku ci nekk sama borom def na ci yow cër boo xam ne bu ñu amee doom ju mel ne soxna maam Issa Mbacké kenn du ne lu tax ngir lan bu ñu jëkkee sëriñ Modou Fati Xari di kenn ci njabootu sëriñ ma Massamba Mbacké di doomam nekkoon ab jullit aqan nekkoon itam ku bëgg sëñ Touba Xaadimu Rasuul nekk jàmbaar joo xam ne ñëpp ràññee woon nañu aw doxinam rawat na ci wàllu xam-xam ba sax doon nañ ko wooyee docteur l'islam moom sëñ Modou Fati Xari waaye soxna Ndeye fay mii way juróom itam nekkoon koo xam ne nga ngëneel bi ko sa borom yàlla boole moom it bokkoon na ci seen pas-pas ba dikkam sax ci biir kër Serigne Modou Fati Xari euh, gis nga ne ko sa borom yàlla dogale ak fa mu jaar. doyloowul bokk ci askanu Mbàkke rekk waaye yitte ak pësteef ak bëgg lu baax ak di ko jëf dafa ràññee rekk soobu ci di ci liggéeyal Serigne Touba. bokk na ci ay liggéeyam. fi ñu koy doole rek mooy euh, day yor ay daaray alxuraan day yor ay daaray alxuraan di leen jàngal alxuraan day yor ay daaray alxuraan di leen jàngal alxuraan bu ñu ko waxee mën nañu ne ci ndigal Cheikh Mamadou Mountakha la ko la ko la ko jëlee ndax du mun Mountakha moo ne ko gàttandul ma soxna jaare yi mu njëkke daara ji fii nga xam ne mooy xayra tudde daara ji soxna Astu Gaawaan Mbakke ñoo ngi fii ci daara yi soxna Astu Mbakke boo déggee daara soxna Astou Gawane nag daara ji soxna maam sa mbàkkee moom seriñ moo Modou Faty Khary ñu gën koo miinee ci ahlu kafe moo ko taxawaloon waaye soxna Astou Gawane moom Serigne la ko tuddee ngir feddali kóllëre kóllëre di lu mat a sàmm waaye daara ji nag du daara ji dong waaye ji mooy ji njëkk kon mën naa ni mooy ndey daara yi mooy daara gi soxna si njëkk a taxawal mu ngi ko taxawal ci 2009. fii ci Touba Xayra. soxna si itam nag yàlla tànnal na ko ci askanam ñaari wayjur yu sell yu kenn dul am lenn lu ñu xebet ci moom waaye moom ci boppamit it li alaf di leb naan ah, garab gi li ñu fi gajee rek moo fay seqee bi mu feeñee jamono ñu jaarale ko fi ñuy jaarale doomi soxna te mooy ci bërëb bi jàngukaay yëpp nampatal ko ci diine xiirtal ko ci ba ay ciiram lagg ci jëfal yàlla suñu borom subhanahu wa taala waaye lu ci yéeme itam nag bi mu ne junet ba tànkam ci yoon ko ay waajuram xàllal dafa daal di xam ne kii nga xam ne moom la ñuy wax soxna jaara ab royuwaay la te jëfam jii mu jëf bañ di ko wooyee jaaratullaahi li ko ko may mooy teel a nargan jëmmam ci lislaam mu ne man nag kooku rek laay teg sama kanam def ko sama joxoñ di ko xool di roy ci moom fas yéenee nekk jigéenu jullit boo xam ne référence laay doon mooy royuwaay loolu nag moo sabab doxinam wi ngeen dégg ba tax na àdduna sëpp wëlbati ko sopp ko danaa koy faral di wax sama biir wax naan nii mu mel ci askan wi ci xooli nit ñi boo boo tuddee soxna maam Issa Mbacké foo yaakaar ne aw turam àggu foofu boo ko fa tuddee ñooñu feeñal ci moom cofeel Serigne Saliou daana wax ne bul wax nii laa mel Serigne Touba xoolal nu nit ñi mel ci yow kem nu nit ñi mel ci yow noonee nga mel ci Serigne Touba. samp ay daaray alquran di dimbale ay nit yar defar jàngal nit ñu dul jeex. buñ ñëwee fii nag di jàngale alquranul karim di yar ndaw ñi te yar moom weesuwul. laabire rek nga laabire la ca gan mooy ngay laabire nit ki ci aw melokaan bala nga kaa laabire ci ay wax waaye ñoom it seen melokaan mën naa laabire ku ne ndax comportement soxna jaara lañu yor waxuma la alxuraan ji waaye bëgg lu baax gi rek moom doy na sëkk di jàngal xale yi ñuy mokkal alxuraan di ko tari di beqi di jàng seeni faraa idul ni waaye nag moom tubaarakàlla rek la ñuy wax sant suñ borom rek ndax yàlla moom mooy dogal waaye dogal na Euh, fii moom li fi nekk moom mel na ni ñaan nga fi sëriñ Abdul Hakim ñaanoon rëccu wuñ ko ndax booba ñu ngi koy fàttaliku ñëwee ne maam jaare yëpp dinañ mokkal alxuraan incha allah daal di léemu daara ji dem. waaye li fi mokkalee moom ci daara jigéen ci xayra jàngalekat yi ko seede nee nañ fii rek la am ñu ngi jàng jàng mucc ayib yombul nag jàng moom yombul waaw ndax lu baax moom du yomb njàngam qualité njàng mu baax loo wees di ko mokkal ànd ak tajwid ak xaraf yu leer. Euh, boobu njàng moom du mën a yomb du mën a neex. moom nag kon jëmm la joo xam ne tàggat na jëmmam ci yàlla boroom bi subhaanahu wa taala kaano ibadan bi taatin li rabbihimoo wa kaana jàlla lahum rabban bi muy naati waxtu yàlla nemmi koo toolub yi dana seen soxna maam Isa Mbàkke ca biir waaye kenn du ko dégg ci toolub tere yi mukk kenn du ko ca gis loola nag moo ko may lii mu am tey alhamdulillahi rabbil alamin nuy ñaan yàlla aw fanam gudd lool te ànd ndax moom kat jël na léppam jébbal borom bi subhanahu wa taala roy ci maamam yu baax ya waaye roy itam ci way juróom yi nga xam ne mooy soxna Ndeye Faye mi nga xam ne bi muy ñëw ci kër sëriñ Modou Fati Xari dikke ne fa pas-pas ngëm ak wóolu daanaa ko tooñ sama maam la daanaa ko wax ne gëmoo ko dul sëñ Modou Fati Xari boo tuddee boo bëggee mu bég dëgg-dëgg tuddal tudd sëñ Modou Fati Xari ci wetam ba ni mu làqoo suñuy ba sëñ Modou rek la teg ci kanam liggéeyalam sëriñ Touba yamul rek ci biir réew mi waaye ba ca bitim réew ma fa ak laxasaayam di xidma sëriñ Tuubaa fa mu ne woon inna lijina ila sar sar xat xasadu shaaritin faaraqu daari new saara kon soxna maam Issa Mbàkke day jóge fii euh, Sénégal dem foofa ca gànnaar sëriñ Tuubaa wax na ni ku ma fa fekk shaari si ma tàggoo nga ak sama bakkaru àdduna ak bu àllaaxira ay mag daana jóge fii Sénégal di dem foofa waaye nag kin gën a xam ci soxna ki nga xam ne moo fa njëkk yóbbu délégation ginnaaw ndigali Serigne Saliou Mbacké joxoon euh, euh, ki nga xam ne moo jiite woon daari Kamil ngir mu dem fa waaye soxna Mame Issa Mbacké moo moo moo njëkk jël délégation fii Sénégal yóbbu leen Mauritanie Mauritanie googu tamit duñ fa àggee liggéeyal Serigne Touba yu fasantikoo la fay def ndax ku ne xam ne ne Sarsara ak fi ñuy dar ci Nouakchott bokkuñu waaye moom am na fay daayere yoo xam ne ñooy liggéey Serigne Touba ca dëkk ba am na fay daayere yoo xam ne tamit ñooy liggéey Serigne Touba ca Sarsara kon loolu bokk na ci ay liggéey soxna Maam Issa Mbacké ci euh, ci ci ci ci ci ci ci ci àdduna bi bokk na ci tamit day génn international di wër euh, maanaam àdduna bépp li mu fay def nag mooy di di fekk ndaw ñi nga xam ne sànq woon nañu wala fekk ndaw ñi nga xam ne tukki nañ euh, amuñu ku leen orienté soxna maam Issa orienté leen ci ci ci liggéey Serigne Touba orienté leen ci jëfal Serigne Touba bokk na ci. boo fekk bu fekkoon ngay takki ceen wala ngay takki plaque da lay xamal ne kat Serigne Touba ab taalibeem koo ko gis dara da kaa war a xàmmee daa war a xàmmee ni kii taalibe Serigne Touba la. fu mu mës a ne fu mu mës nit ñi dañ koo miin ci kafe waaye fu mu mës a nekk li gën a nekk yitteem mooy lislaam ji ne ci moom mu jëmbat ko ci xol doomu aadama yi alquran ji nekk ci moom mu defaat ko ci ay xale. ngir wane ne moom nit diine la goo xam ne dafa représenté l'islam waaye dafa war a taxawal l'islam waaye dafa war a jëmbal l'islam loolu nag mu doore ko ci njaarim googu mu nekkoon bi mu fa bàyyi ko itam ñëw xaayara diir bu néew soppi na gone yi soppi na mag ñi kenn ku ci nekk mu xamal ne caaxaan yi nga nekk wéyut saxal ci dëgg moo li lay jariñ waaye dañ daan wax ñu ñuy defar xëdd di ko joxe bu fajaree dara wut ay peñe mburu yu bari ak ay ay cafetière yu ndaw cafetière armignon yi bu fajaree mu defar meew ñu joxe xëdd ci koñ bi bu fajaree ku mu yeeri nga daw dugg na xam nga heure boobu daanaka nelaw yi day neex te joxe xëdd bi dangay fëgg nit woo ba mu génn mu lay ci patoog yooyu moo tax joxe xëdd bi sawaruñ ci woon daal moo tax ma ne lu baax lu ne ma nga ca bu nit masaan nekk ci koñ bi am doom weer wi dee te woorul bu waree fay weer wi soxna da koy wax soo fayee weeru koor gi ba mu jeex dinaa la ba set dinaa la jox ndogu tey tamit bu wi dee naa la xottil set moo defaral ndogu moo lay ba tax jeeg ci koñ bi yëpp na ku masaan am doom da ngay fay koor gi soo ko fayee ba mu jeex soxna si xottil la yére te moo lay defaral ndogu xam nga loolu nag koor gi doo ci sonn. mu làmboo jikko yu rafet di setal këri sëriñ Touba yi di joxe ñam bañ ñu miinee ko soxna maam Issa Mbacke Euhlou kafe day liggéeyal sëriñ Touba ci kër sëriñ Touba yi loolu tamit bu nu ko waxee. xel mën na cee dal ndax mooy ki nga xam ne mooy bale kër sëriñ Touba yi mooy ki nga xam ne chaque ajjuma ju nekk muy kër Serigne Touba gee ca jumaa ji ak kër Serigne Touba gi ci Daaru Manaan ak kër Serigne Touba yu mën a doon rek te ay ay ndawam ne fa moom mooy joxe ndigal ngir ñu yeesal kër Serigne Touba yi ngir ñu koy bale ngir ñu koy fomp ngir ñuy fóot li nga xam ne mooy drab yi di yeesalaat kër yi bokk na ci liggéeyal soxna Mame Issa Mbacké yi nga xam ne moom lay liggéeyal Serigne Touba ku ne xam ne ni soxna Mame Issa Mbacké bépp màggal boo xam ne am na muy daaru salaam muy daaru moxti wala muy seexi Serigne Touba yu mën a doon rek soxna Mame Issa Mbacké lu ci jiitu day jiitu ca dëkk ba bale ko yeesal ko ba mu yees bu màggal ga ñëwee tamit mu ànd ak mboolem fédération dem teew ca màggal ga joxe ay bernde joxe kafe gi nga xam ne da cee da ciy liggéeyal Serigne Touba. Euh, lu baax lu ne ma nga ca ba tey euh, danaan dimbalee tamit am néew doole bu masaana ñëw rek ci koñ bi ci soxna si nga jëm ku masaana néew doole ci soxna boo ñëwee du la xeeb loolu moo ñu gën a marqué ci moom du la xeeb daal kon ni ko Serigne Touba waxee wanzur ila kulli xalhin xaqa man xalaq kon nit ku nekk ku mësaan a gis rek ak yàlla mi la bind lay xool ci moom. ngir feddi li kóllëre ak seede liggéeyam ci alquran ak liggéeyal Serigne Touba moo tax Majmahun Nurayni numéro 5 ci njiital Serigne Mouhamed Cissé muallim di ko sargal ci bisub alquran bi. waaye nag sëñ Modou tamit ku am kóllëre la mu jël conférence bi tuddee ko soxna si yaakaar naa euh, dañ ciy am mbégte lool ak kontaante kóllëre rek lay sàmm waaye la sëñ Touba waxoon rek kama amoon ñàkk duma tàggaleeg moom waaye kam ma ñàkkoon dem am duma booleeg moom sëñ Modou mosuñoo bàyyi guddi mosuñoo bàyyi ba cëkk wallaay lazim dañ koo naw lool nii mu mel nii noon la ma sa jaarut ci ngone yaa na ko yàlla lafal cet yàlla defal ko barke fépp fu ñuy dégg doomu aadama yi ci lislaam yàlla nañ fa fa kaw ñortam te am nañ ci yaakaar nag ndax lu baax moom boo ci nekkee tamit li dëgg ci yow rek moom doo ca dellu ginnaaw benn yoon di ñaan yàlla guddal aw fanam ko wér dégg suñu Omar Kane balay si di ko wax mais ñaan ko important la mooy yalla na la yàlla may fanu gudd waan ak wér te wérala la itam ñi la wër ndax kuy dox ci kaw suuf ku nekk war nga am ñu la wéttali te gone yi mu formé di leen jàngalal alxuraan ñii di jàngal alxuraan ñooñu bu ñu wéree dañ gën a mën a yaatal lislaam dañ gën a yaatal diine wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa